ñëw nag Mansour ah ku la defal lu rëy da nga koy fayee lu rëy te nee bis du tuut borom lay tolloo bàyyi jiili. Hmm? Jamaïcain bi jiital jam production daa jël drapeau am tuddee ko le ministre Matar Ba mu daal di koy sargal mu ne ko Jamaïcain doo ma gën a gore damay woo sama délégation woo samay xarit samay am di jàmm samay mbokk ñëpp daal di ñëw ngir taaral bis bi. kooku nag ngeen di gis noonu mu def tout blanc couleur jàmm la man eh, daan na dem rek sargal bis bi taaral bis bi ñu gis promoteur yu bari ci biir parce que yéen ànd ak le ministre des sports moom mi gàlloo ndombay tànk bi jëm ci nga xam ne nii mooy tàggat yaram bëgg làmb ba mu jeex ah. ak monsieur le maire maa ngi koy nuyu maire Fatick. dama ko nuyu bu baax ku gis noonu liiru jaan la le monument de Guédiawaye hmm? ñëw ba Fatick <laughs> ngir taaral bisu bisu ministre bi. su bëggee ñu maye ko léegi su ñu maye ko léegi ñu bégaleel ko fii ma sumee ko léegi ñu maye ko ñu bégaleel ko du dara du dara. doo lay bàyyi fa. muy noonu waaye alors yee eh, du ne fii jubal stade ki ko woo nag mooy jam production di jamaïcain xale la waaye ñeme na li muy def gëm na ko di tëgg lu simple fii ci Fatick dama Ndeye Mbacke <laughs> lu nekk rek dañ koy delloo boroom ma ne ko kuy boroom jam mu ne ma suñu ministre bi doo ko li topp ministre bi kenn xamul lim toll ci doomu aadama ñëpp a ngi ko topp ngir lan mbaaxam fam waaye kenn du Mansour Fall kenn du Leewtoo TV làmb rek lañu toppal fu mu ne ñi génnee ko dañu jóge lu seeseen dem ñaaning saan mu ngi noonu vous voyez yéen a ko gisandoo noonu ndaysaan monsieur le ministre a ngi noonu di dugg si ci stade bi ndaysaan mu ngi noonu di dugg si. Fatick ñëpp jug Fatick ñëpp ànd ak moom mu wane rek liggéey rek am solo loolu liggéeyal dox fekk su fi deful woon dara bu ñëwee nii dañuy tekki toog jàpp seen ñaambur waaye lam liggéeyal tax ba mu ñëwee jeunes yëpp daal di jóg. jeunes yëpp daal di ciy topp nga gis suñu père Gaston Mbengue noonu ànd ak moom San Ndiaye borom Bawol TV Mansour Fall lii dafa rafet dañuy ñaan yàlla jàmm sax suñu réew waaye Matar Ba kenn moom waaye jaaraama jam production jamaïcain xale bu ñeme boobu xale bu nangu boobu dëgg làmb fatik dana ma koy delloo borom Fatick kan mooy borom nag du romb suñu ministre bi Matar Ba yee laa ilaaha illallah ne woon la bu ñu naanee ndox rek neex ñetti fanu tey ji ku namoon làmb ku ne da ngay doyal ci làmb ku bëggoon làmb ku ne kontaan nga ndax li nga gis ni doy waaye tey nag mu la woon ci àppaacool bi nga borom sport dañ delloo bi Mansour Fall sama caméraman bi dama koy gërëm na di ko sant yaa leen image yëpp moom ma koy jëlal comme ni nga waxee rek su ma ñëwee ñëpp laay jàppale ba Matar ba baawul kenn du promoteur bu ndaw du promoteur bu mag soo gisee ñim àndal nga xam ne jàmm bari na fi te yàlla fi yàgg suñu père Gaston Assane Ndiaye borom Bawol production ak yeneen promoteur ak yeneen promoteur waaw mais dañuy am mbégte bu baax di la balu àq di baal ñëpp àq di balu Sénégal yëpp àq di leen baal àq di wax ne vraiment am nañ mbégte bu baax ci weeru sel bi nga xam ne ci lañ jógee di ñaan rek bu déwénee ñu fekke waat ko fekk ko yeneen at yi at yi ndax yaakaar naa lool la julli bépp di ñaan di ko ñaan julli yëpp di ko ñaan Sénégal yëpp ginnaaw tey ja jamay tëgg bis dara jaale ko ki nga xamante ni ministre lu làmb laa ko mën a wax parce que lépp lu làmb soxla rek gis nañ ci président monsieur le ministre Matar Ba tey lan ngay wax. waaw mais ki dafa def lu am solo ndax yaakaar naa bu tuddee làmb bu tëggee làmb Fatick euh, jébal ko le monsieur le ministre Matar Ba def na lu am solo ndax fi yaakaar naa Matar Ba mooy borom kon dafa delloo bu mu ca mboy boy ba rek. waaw am contentement rek ndax ku gis drapeau bi ak ni ma ko joxee en waaw jëli dañuy sant yàlla bu baax a baax julli Seydina Mohamed sang-sang yi di sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yëpp di nuyu waa Sénégal bu baax a baax di nuyu waa bitim réew di nuyu waa ñun ay ndaw lañ suñ demee ba mën def lu mel nii rek askan wi ñuy ñaanal la dañ ñuy ñaanal ñuy nangu ñaan ñu ngi leen di delloo ñaan gi ñuy ñaanal képp ku ñu ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm suñu xool sedd na tey bu ñu ñëwee nag ba mën a ñëw Fatick def lu mel nii grâce à ministre Matar Ba ndax dañ jóg pour di décentraliser lamb di liggéeyal lamb di wan seen yi di ñaax sunu nawle yi sunu morom yi wane ne aduna liggéey la góorgóorlu jaamu yàlla. dakaar sa tiré ñu wane ne dañu war a décentraliser ren fan lañ jëm nañ njëkkee Fatick benn président de la république fi la dëkk. ministre des sports bi ñu dénk lamb ji Fatick la dëkk ba pare mu nekkaat maire Fatick bu ñu ubbee lamb Fatick nag dañuy jël drapo bi teg ko ci loxoom ndax moom chaque jour day wax gars yi ne da leen di ñun décentraliser bu ñu jógee indi ko Fatick jox ko ko wàcc nañ ñu ci bés bi waa Fatick taxawuñu jiri si bés bi wax dëgg yàlla lii mention spéciale. ngay retardé ku la dégg xam ne sa xol sedd na. non xam man chaque jour dama koy wax man su ma tëggee lamb stade sama xol day sedd ndax loolu mooy réussir alal du réussir wax dëgg yàlla ministre bi tamit. bàyyi portu yi bàyyi jeune Fatick yëpp <laughs> ñoo seetaan ci lamb ji loolu nag dañ ci am contentement bu baax ndax ñu bari communication bi xawoon na jaaxal gars yi askan ñu bëri ñëw ci bunt bi nangu ñu dagg billet ndax soo waxee ñu ne lamb ji gratuit la bon ñun ay ndaw lañ di góorgóorlu di liggéey ñun stade bi fees moo ñu gën a lu ne ci àdduna te tey gis nañ loolu kontaan nañ yéen tamit ngeen déplacé wu jugee Dakar ñëw ba fii ñu ngi leen di wax mention spéciale li mooy wane ni yéen lamb ngeen di liggéeyal lamb moo leen ñor lamb ngeen di dund ñu ngi leen ñaanal di ñaanal seen directeur yi di ñaanal Leewtoo Pape Dialis Faye mooy directeur bi ci lamb la bokk wasaare bas sax laay wax ne mooy directeur bi keneen kii États-Unis kooku du ci dara maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax yéen ñëpp ay jeunes yi lambu lamb ngeen di leen ñaanal kenn ku ci nekk ngeen ñëw ci jàmm delluwaat si jàmm di nuyu nag sama papa père ba ndax lii yëpp su ko Jamaïcain amee moom la jii li damaa war sant yàlla bu baax a baax a baax ndax stade bu ma mus a dem si Sénégal def naa fa lu kawe njortu ñu waaw ak Gambie tey nag lii sant yàlla la wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla julli Seydina Mohamed ñaan yàlla gars yi gën ñu ñaanal gën ñu kattanal fi bëgg yóbbu làmb ñu yóbbu ko fa maa ngi nuyu nag Père bu baax a baax a baax sànq ne ma foo dëkk fan nga dëkk ci réew mi foo dëkk Sénégal nga dëkk wala Gambie nga dëkk ndax yow foo dem <laughs> wane fa sa bopp foo dëkk laa maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Mor Mbaye la griot de Matar Ba ñoom moo grand baay euh, Modou Baye Fall góorandooy Mor bu parcelle mention spéciale képp ku jugee dakaar ñëw fii soutenir ma maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu sama directeur Mbaye Ngom. dafa yebal délégation. aji jaara ànd ak ñoom jimaan jugee Kaolack ñëw ba fii taxaw ma soo technique délégation maa ngi leen di siyaar di nuyu Lirou Diane ak Khadim Ndiaye déplacé wu nañ ay champion ñëw ba fii ngir jëmmal bés bi di amateur yëpp. di nuyu président CRC bi di wax directeur stade bi nag mention spéciale jili dem nañ fu nekk waaye directeur bu mel nii mosuñ ko gis day summeeku bàyyi léppam di liggéey di roñ suuf di dugal baas mention spéciale man nag damay ñaan arène nationale nañ ko dénk saar yu mel nii damay ñaan lancer appel solennellement di ko wax ministre sport ñu dénk ko arène nationale mu yoral ñu ko ndax mun na ko yor boo xoolee stade bi boo fi duggee sa xol day sedd entretien bi bale directeur bi laa lañ ko su ma gëstoon du ko wax loolu nag dafay jot pour ñu ko askan wi seedal ko Sénégalais yi jërë ngeen jëf. maa lay fay jiw bi moo defoon coono. ma ngi sant yàlla bu baax. loolu liggéey neexal waxtaan bi. waaw mais dama ñëw d' abord pour sama rak le ministre de sport sama xarit la sama rak la ñëw aussi pour le jeune jamaïcain di promoteur boo xam ni xale bu yaru la bu baax bu respecté nit ñi ñoom moom rek jaroon na ma ñëw sax mais nag euh, Matar Ba lu muy def aussi su ma amee tuuti jot rek damay ñëw moo tax dama pare sama réunion à 17 h rek taal sama oto nii naa ñëw pour def ak de présence pour mën a dellu xale bu mel ni jamaïcain doon xale waaye vraiment saa yu tëggee làmb indi beneen innovation amateur yi ñëw amateur supporters yi ñëw mbëru làmb yi kontaan tey boo ko doon ñaax ki nga ne yaay bàyyam ci làmb ban message nga koy làmb mu bayee soppeeku rek yaru respecté na magam yëpp respecté ay papaam ku ko gis sax koy bëgg yërëm ko man jamaïcain dama ko jël kom sama parce que promoteur bi fi nekk yëpp ñii samay doom la nu ñii samay rakk la nu ñii samay jarbaat la mais moom nag spécialement dafa wone yar goo xam ni ñun au lieu que mu rus ñun tax ñoo koy rus man dama ko rus ndax yaram. yàlla na ma yàlla jàppale. sànq nee na ma père Gaston daf ne yow foo dëkk tey nga organiser gaal bi suba nga dox. li tax ma laaj ko loolu mooy fu mu dem mën na faa dëkk moo tax ma ne ko foo dëkk même Banjul da ngay demoon fële dëkk dem na bay xëccoo sax président fédération ba. nga xam ni kon baaxaayam ak yaatoom moo ko may loolu ak générosité am yar moom lu mu la mayul leneen la ko may parce que yàlla noppi na ñun ñëpp yàlla noppi na ci ñun soo nekkee xale nag ñëw fekk fi say papa ak say rak ak say mag da war a ñëw rek yaru ndax ñi eh, yaru du la wàññi dara da lay yokk yaru respecté nit ñi yaru respecté nit ñi moom la def moo tax ñun ñëpp ñu respecté ko am na yeneen moromam yu fi nekk yu yaru itam ku fi yaru ñu respecté rek def la comme suñu bopp def la comme suñuy doom c'est tout parce que ñëpp la ñu yéene jàmm ñun moomu nu yëf yi yàlla moo noppi na ñun dana war a ñun ñu nangu ndogalu yàlla yàlla noppi na ci ñëpp Gaston mënul dara keneen mënul dara Jamaïcain mënul dara ku yàlla jàppale rek a fi yaru yàlla jàppale leen. ginnaaw bi nga ñu dàqee nga organiser ay bis yu rëy yu rafet yu am solo affiche yooyu ñu ngi séntu est Gaston dina ko génnee yóbbu ko Gambie wala dina ko yóbbu ci régions yi wala yëpp da nga koy fas yéene tëgg arène nationale. non dana am bu dem Gambie parce que le président Adama Barrow daf ma invité sax war naa fa dem ci fan yi bon suñu demee ba waxtaan nag ñu seet toog xam lu ñuy def mais ba ma leen dàqee tey laa leen gën a dàq. tey doof nga dàq de. waaw mais dàq naa leen dama bëgg ngeen tàmm liggéey. mais waxtaan rek. waxtaanam dama bëgg ngeen tàmm liggéey lu yomb baaxul man kenn mësuma defal lu yomb ba may jógee Louga di ñëw damay wax ne ñaari ginaar laa fi ndàgg gerte mais ñeme meti metti ñeme kaan di reyante reyante leen kenn leen yombalal dara gëm leen seen bopp reyante yàlla na ngeen ëppale Gaston yàlla ngeen ëppale sax ko ëppale Gaston mais reyante leen voilà. dëgg la loolu message la boo xamante ne yàgg nañu ko dégg ci yow bi may jugee euh, ba fee nu mu tuddati <laughs> bi ngay jugee Louga li ngay indi lépp mais Père Gaston jot na nag ñu waxtaan ndax réeroo amul ñàkk waxtaan ndax say doom dong ñoo nekk presse en ligne. li may def li may def après ngeen di comprendre après ngeen di comprendre yéen sax leen jariñ ëllëg mais bu leen yàkkamti bàyyi ma dàq leen rek da ngeen ciy jàng. waaw rek yaa ngi naan Jamaïcain xale la waaye ku jikkoom rafet mu mën a def ak gis nga teewaayu Gaston Mbengue nga xam ne tey bu doon Jamaïcain dafa am nu mu taxawee dina ma dina ma ñëwal rek man rek mais xam naa ne ñëw na mais ñëw na uuf doomam. parce que jamaïcain li ñu koy wax rek mooy na continuer ci yaram li mu bëgg a xam ci làmb dana ko xam bu ma defalee li nag muy ndewenal moo tax bi may ñëw ma ne nañ ubbi bunt yi ñëpp dugg parce que ndewenal nag day yomb ci nit ñi su ko defee waa Fatick bég ci ñëpp xam nañ ne ci région bëree la nekk ci région làmb la ñu nekk kon tey defal leen lii lu am solo la baax na ci ñi bëree baax ci ñi seetaan te loolu lu am solo la moo tax ñu ne président Macky lim ñu sant mooy tey bu doon fongale mi sax te ñu war faa yóbbu làmb dañ ko war a yóbbu parce que sénégalais yi ñëpp a bokk. dakaar am nañ chance am arène nationale am làmb chaque samedi waaye ci biir dëkk bi ak ci biir réew mi am na gox yeeg goxaat yoo xam ne dañuy organiser ay làmb te làmb yooyu nag kenn waru ko doyadil moo tax ma jóge Thiès. bañ a yónnee ñëw toog fii nga xamante ne yàlla dogal na maa fi maire ma ànd ak population bi ànd ak responsable politique ànd ak mairie bi ànd ak képp koo xamante ne am nga jot tey ñëw ànd ak population bi feete li nga xamante mooy bés mu mag bi. ñuy waaj a drapeau chef de l' état vingt 27 ak le 28 après Covid drapeau chef de l' nan lañ ko fas yéene waaj. waaw drapeau chef de l' de mooy drapeau ki jiite réew mi te nag xam naa luñ ko tëgër rek day niru bés ba moo tax booy ñaak mbër yeeg ñoom Eumeu Sène ak ñëpp ñu daje Kaolack mooy dans le Sine Saloum ñu feete fa président Macky Sall. li ci nekk nag lu am solo mooy dañuy dañ koy feete le 29 mu romb fii dem Kaffrine dem Kédougou kon defe naa ne dañ koy préparer ñoom dina nekk lu ama am solo lu extraordinaire bu soobee yàlla. jërëjëf monsieur le ministre kontaan nañ. ñu ngi leen di sant yéen ñiy wasaare lamb continuer leen di wasaare nag te di wasaare jàmm di wasaare luy defar lamb loolu rek lañ leen sant.